ci TFM mbokk na ci li ci gën a fës fitna ga xëyee ca wakaam ci diggante askan ba fareeg jaraaf nga di Yusu Ndooy ak ña féeteeg ndey ji réew ga di Mam Muse Ndooy coowal suuf nag moo wundu xuloo ga ndey ji réew gi daal di joxoñ baaraamu tuuma jaraaf ja ne seeni suuf yëpp jaay na ko mbootaayu askan bi loru woon ci violence yi ñu fi nemmeeku woon mu jiitu tabab njiitu réewu Sénégal rawatina famille ña ca faatu fas yéene yóbbu nguuru Sénégal ci yoon ñu àtte dëgg képp koo xam ne defoon nga ci naka sudul noonu ñu teg la ay daan lii moo leen soxal wante jàpp nañ ne nguuru Sénégal defu ko yitteem niñ ko baaxoo defee laata Abdoul mbay di premier ministre di def déclaration de politique générale am démb ñëw nañoo ak yéen ci wàllu xëy tey ji wàllu kaaraange lañ nar yéen di ngeen ci ñëw ak yéen ci njeextalu xibaar yi li fi gënoon a fës bu ngeen taaxirloo as ñu yaatal ko. asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñuy seetaan dal leen ak jàmm ci ëttu xibaar yi ci TFM. ni ñu ko junjee lañ koy dooree tey nag fitna dafa yeewoo fële ca wakaam li ko waral mooy nag ña fareek euh, jaraaf ga di yu sundooy ñoom ak ñeneen ñoo xam ne ñu nga fareek nday ji réew ga di mu Moussa Ndoye ñoom nag ñoo doon xulo lan moo dox seen diggante coowal suuf ndaxte nday ji réew ja moom dafa joxoñ jaraaf ja ne seeni suuf ya ne woon ca gox ba yépp jaay nañu ko jaraaf ja moom nee na loole dara du ci dëgg ndaxte suuf soosee dañ ko jagleel ndawal wakaam Chérif Dia ak Yaya lii mooy fanweer ak benn hectare yi nga xamante ni moom lañ tuddee titre foncier 5007 nekk ca wetu monument de la renaissance africaine ca Wakam suuf si nag moo waral xëccoo bi ci ñi ànd ak jaraaf Youssou Ndoye ak benn wàll gi ànd ak ndey ji réew alaaji Mam Mousse Ndoye fi mu nekk puisque deux cent et quelques parcelles moom la yore jaay ko ay nit ba noppi nag amal lu mu leen jox nag mu bëgg mooy mooy mooy war a tur bi yëpp li muy sow loolu nag la mag yi ah ñi yore dëkk bi nanguwul. te foncier 5007 maa koy ilif ci nu yàlla 5007 suuf wakaam la titre la boo xamante ne wakaam yëpp a ko bokk. man ku ma xam-xam ne man suuf li ma si xam mooy nañ ko dëkke xale yi dañuy toog si dëkk bi duñu am kër duñu am dara te nun nu am ay kër est-ce que loolu du kañaan ci centre de santé bu Wakaam fekk nañ fa doomu ndey ji réew ji moom dafa bëggoon a tere ndaw ñiy wéyal liggéey bi nga xamante ni mooy dog suuf siin jagleel xale yi ba tax mu jàpp ni dañ ko agressé papaam daal di wooteem ndaje. y a un gars qui est mu agressé ma di noo doon Ngara Samb ma agressé il m'a agressé daf ma door xeer pour que ñeneen ñu songam j'ai senti que j'ai été visé alors j'ai ma replié wu parce que dañ ne benn nit du xeex ak mbooloo. ñu ngi si quatre-vingt-quinze pour cent de réalisation pour liggéey bi pare waaw ñooñu bu ñu fekkee dañ bëgg a jàmm ñu dëkk si dëkk bi nañu ñëw ñun si ñun ñu toog ñu waxtaan ñu xam ne ne lii bu ñu koy joxee dañ koy joxe équitablement dama ne dañ koy jox si joxoñ bu wóor. agression amu fi dafa fekk ne dañu jële ji ay nervi ay mbër ah ñu nekk ñoo xam ne ne dëkk ñu wakaam dugal leen si biir àll bi ñun ñuy oo ñu wax ñu ko si fajar gi nañu am nañu ñëw si àll bi arrêté engins yi ñooñu bu ñu ñëwee ñun dañ leen génne. préparé nañ si tout. dara dara lañ si béy. dama ne bañu si dara daal fu nu mën a yem daal bañu si dëkk bi daal takku na muy mag di ndaw di ko jigéen blessé yi mu def nii bi taata la moom moo joxee boobu ordre. jaraaf Youssou Ndoye nag min tuumaal moom wedd na yooyu tuuma te ne kilifa la ba tax muy woote dal ak jàmm ca wakaam. 31 hectares ñu joxe ko ba mu des 7 hectares 500 waxoon naa ko ak jaraaf ji nelaw devant le procureur ba ñu d'accord si mais ay nit yu nekk si dëkk ne woy cadre la woon wala nangam nangam wala dañu gagné si mairie bi dundooy boobu ngeen di wax fu mu nekkoon si mairie bi da ngeen koy laaj lu ko jëlee si mairie bi xam nga lan moom moom fi teg fédéré. beneen parti bi moom mi ngi wéel réunion ca kër ki fi nekkoon jaraaf Saybatu Gueye jàpp ni buñ ca jógee danañ xam naka la ñuy doxalee ca jamono jooju jaraaf Youssou Ndoye moom xamle na ne dina wéyal dagg suuf si mu jagleel ndawi Wakaam jàpp ni kenn gënu leen cee yey jërëjëf Chérif Dia leneen ci wàllu xibaar ak mbootaayu askan bi nga xamante ne dañoo loru woon ci violence yiñ fi nemmeeku woon laata ñuy tabb njiitu réewu Sénégal rawatina famille ñi nga xamante ne dañ cee faatu woon ñoom nag tey dañoo xëy amal benn point de presse ci siège u Amnesty International foofee nag am na lu ñu fa jël benn ndogal mu di lan yóbbu nguuru Sénégal ci yoon ngir ñu àtte dëgg képp koo xamante ne defoon nga naka sudul noonu ñu teg la ay daan ñoom xamle nañ ne loolu moo leen soxal wante dañoo gis ne nguuru Sénégal moom defu ko it yitteem ba tax na dinañ ko yóbbu ci yoon a Birama ne Nera Ababacar Camara ak Daouda saw lañ ci yàndal collectif bi boole famille ñi loru ci jàmmarloo yi amoon ca jamonoy élection yi fas ne nañoo wëyal xeex bi ñoo ngi ñaawlu yéexaay bi ñu nemmeeku ci dossier bi ci loxo justice senegal ci noonu lañu ñu xamle ne danañu porter plainte kii di nguurug senegal ñun daal ci action yi ñuy def yëpp gisuñu ci résultat bi nga xam ne dal na suñu xel loolu moo tax yi nga xam ne moom la nemmeeku euh, juróomi cas ñoom lañ ci saytu ne am na avancé mais ñaar yi ñoo am résultat nguuru Sénégal collectif bi dina ko porté plainte kooku moom defe naa bu yëf yu yënguwul loolu moom ci loolu tànk yooyu la ñu jëm ci bile ndaje la Rokhaya Gassama ak ñi mu àndal ci bile collectif ñaawlu taxawaayu ministre bi yor wàllu biir réew mi ñoo ngi tuumaal mbay jaay ne day jàppale kii di commissaire Arona Sy waa collectif bi di ci sàkku intervention njiitu réew mi. discours bi nga xam ne moom la ñu servir léegi dafa xaw a euh, ñagasal mbir yi mooy euh, di wax ne par exemple Arona si bi nga xam ne moo doon commissaire central te nga xam ne moom joxoon nañ ko baaraam ci mbir yi nee na nañu ko bàyyi parce que Arona Sy personnalité la bi nga xam ne liggéeyal na Sénégal def na li nga xam ne li mu def mooy loolu la nit waroon a def ñuy interpeller moom ministre de l'intérieur ñu profité waale ci interpeller président de la république di ko wax ne am na kàddu yi nga xam ne bu ngeen ko yëkkatee ñun ñi nga xam ne ñooy parents victime wala victime yi dañu ciy gis suñu bopp te dañuy bañ li nga xam ne moo fi xewoon xewaat fi. bile collectif di xamle ne fas yéene nañoo topp xeex bi ba fi mu yam ngir yoon mën a def liggéeyam njiital collectif bi di wax ne weer bu ci nekk danañu xamal nit ñi. fi seen dossier bi toll ngir lépp mën a jaar ci yoon comme ni mu waree. réewum Gambie ak faat prisonniers yi nga xam ne ñoom lañ fa tëj li des ci seen ngiru dundu président cour africain des droits de l'homme et des peuples maanaam këru Afrique bi saytu ak yelleefu doomu aadama njiitam di Gérard Niyung Gekko ne moom loolee nag bi muy am amul benn kër goo xam ne day saytu àq ak yelleefu doomu aadama fii ci Sénégal boo xam ne bind nga ko bataaxal wala nga ñaxtu ko ci moom donte nag euh, kër yi fi nekk xamle nañ ne bindoon nañ bataaxal gu ni mel moom nag dafa jàpp ne bu fekkee ne yëgaluñ ko ko du mën a ŋànkal boppam yëf yi Cheikh Abdou Khadre Mbacké Seck ak Demba Ndaw kuréel gi xeex àq ak yelleefu doomu aadama Sénégal waxoon nañ ne saisir nañu cour africaine des droits de l'homme waaye njuutu kuréel ga mi jàkkaarloo woon ak taskatu xibaar yi nee na kenn mësu ko saisir. suñu kuréel bi kenn saisiru ko loolu moo tax duñu ci mën a wax ndax kenn soumettre ñu mbir mi. kenn saisiru ko li des kañ mooy saisir boppam. cour bi amul doole saisir boppam ñi nga xam ne dëppoo nañu ak moom rekk ñoo ko mën a def. su ko àttekat bi saisiroon day doon mbiru politique te am na ñoo xam ne loolu moo leen tax a jóg. Sénégal doon na réew mi nga xam ne ratifié na lu bari ci instruments juridiques yu Afrique waaye signéwul nag déclaration bi tax mu mën a am baat ci Cour africaine des droits de l'homme et ñuy fàttali rek nekkoon yenn kër yi nekk fii ci Sénégal di saytu àq ak yelleefu doomu aadama ñoom xamle woon nañ ne bind nañ ko bataaxal wante nag bataaxal googe moom dafa juyoog moom ndaxte dafa amal tukki fii ci sunu réew leneen ci wàllu xibaar ak benn accident bu ñu nemmeeku tey ci benn booru waxtu fële ca quartier Grand Dakar foofee nag kon benn camion moom moo dal ci benn taxi naam amul kenn ku ci ñàkkaay bakkanam waaye taxi bi moom yàqu-yàqeet la dal di def Mariam Ba ak Mar porte bi laa taxaw nii bi ma déserté këriñ ba pare ma taal oto bi bi ma ko taalee air bi bari air bi mu baree nag si la teew bi toj teew air bi bi mu tojee nag si la ñàkk frein fekk mi ngi taxaw si descente bi xam nga descente bi may ko heure nag amatul frein ci la daw fii a dëgmal miir bi nii comme lii fekk ay nit ñu bari ñu ngi toog fi xam naa su ma leen dëgmalee ñoom ñëpp dinaa leen rey après si la kut wala nii nag si la kut wala si waaw police bi mu ñëwee laaj na ma problème ma sama permis assurance oto bi ak ñaari carte grise yi bi lii daal moom fekk ma fi mu ngi ma fekk ma toog fële chauffeur bi dafa paan ñëw gaare ci angle bi fii woo ma le temps may ñëw camion bi ñëw fekk fi mbëkk man xalaatu moon oto bi nit ñi laa doon xalaat ndegam yem na ci oto bi rek euh, sant yàlla parce que oto bi ni mu gaare nii du woon sens bi la gaare woon beneen sens bi la gaare woon quoi bopp bi fële la féete woon daf ko mbéj mu tourné quoi. mu tourné nag yàlla dogal na mu yem ci lii dana war a sant yàlla rek parce que lii daga matériel la du dara mu ngam yem na ci lii laalul kenn daal sant yàlla vraiment chauffeur camion bi aussi am na mérite ndax man dawalkat laa xam naa ko mun dawal ko mënu dawal ndax descente bi moom bi mu wàccee fi non pour man saye ñun ñëpp lay rey maîtrise bi moom ba génn ci nag yem cooto bi tim sant yàlla rek la te xam ne lii la yàlla dogal leneen ci wàllu xibaar ak nawet bi ak canal yi nga xam ne moom la ñu defar ngir ndoxu taw yi di fa jaar kanal yooyee nag seetlu gi benn la maanaam ndox miñ fay tuur bu salte bëri na rawatina mbalit mañ fay këpp teg ci tamit ay ñax dañuy faral di sax ci wet gi bi ci gën a fës di kanal kaat nekk ca wetu université Cheikh Anta ci loolu nag mairie de Dakar dafa dal di nag jël benn opération ngir set setal canal ga mbalit ma yëpp ñu dindi ko ñax ma itam ñu dagg ko loolee nag askan bay yeewoo ca booru canal ga rawatina fay jàll di ko rafetlu lool Adiyatala ak Mar melokaanu kanaalu kat bi jéggi na dayoo tax na ba askan bi fay yeewoo di jànkoonteel ak i jafe-jafe ndoxu taw yi dematuñu nu mu waree xet bu bon ak yooy yi di fa lëmbee. ñu ne rekk jot nañu soppi doxalin. façon salte mi ngi fi. jafe-jafe dafay indi yoo yoo muy dëkk fii sax da am problème pour nooyi parce que affaire dafa war a nekk chaque année ñu ñu defar ko suuf dafay nekk yaa tout tout lépp lépp dafay nekk. du question wu ñu koy curé muy propre mais li ci njëkk ci base bi si si ñun la parce que ñun ñi dëkkandoo yi nga xamante ne ñooy nekk fii nekk ci biir Cana fas ñoom bu ñu amee seen mbalit mbala dara ñëw di ko tuur ci canal bi apparemment am na normalement oto buy jaar di jël dañu war a xaar ba oto bi ñëw ñu sotti ko. ni canal 4 bi mel tax na ba mairie gox bi soobu si setal rigol bi naam li ci ëpp warugaru nguur gi la woon waaye mairie bi mënatul xaar ndax yéexaayu procédure yi. chaque année il faut obligatoirement def li ñu naan curage des canaux ciel ouvert li ñu wax nag état mooy lu am solo mooy curage à canaux à ciel ouvert ay urgence la mënul jaar ci ay procédures yoo xam ne day yàgg di yàgg di yàgg donc problème yooyu parfois dañ koy jànkonteel. mairie point E amitié di ñaax nguur gi rek. di tegay daan ñi faral di sotti mbalit ci fiñ ko warul a def. ñu ngi taxaw nii gis ay ay ay des des femmes di sotti mbalit te pendant que nit ñaa ngi curé loolu dafa graaw ci par rapport aux populations. il faut que loolu déjà ñu ñu lancer ko euh, comme comme comme campagne également nit ñi commencer di sanctionner aussi parce que am na ay réew yoo xam ne soo fa sànnee mbalit dañ lay tëj. jëwriñ gox bi fas na yéene def kemt lay kattanam ngir jëlee fi lépp luy mbalit wala ñax bi nekk ci biir canal 4 bi. phase bi mu ngi fii nii day continuer ba jusqu'au bout bu yegsee ba ba jusqu'au bout lépp booloo bo booloo foofu après machine yi nag bu ñu ñëwee dindi ko loolu du nit boppam machine mais après à la fin du curage fi dara dootu fi dara dootu fi nekk. sur la phase je pense qu'il reste peut-être une une une quinzaine de jours quinze à vingt jours pour pour terminer les les les dix canaux à douze canaux à ciel ouvert. canal 4 bu ñu gasoon ay at yi ci ginnaaw li ko taxoon a jóg mooy yóbbu ndoxu taw yi kese ci géej waaye li ñu nemmeeku mooy ndoxu foos yi mbalit yi yépp a ngi ci biir moo waral yoonu ndox mi fàttu. xibaaru tàggat yaram Pape Abdoulaye Der asalaamaaleykum. waaleykum salaam Ibou Kane. xel yëpp dem ci jongante bi dox ci diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire gaynde ye ñu ngi ca Abidjan. ñu ngi ca Abidjan euh, jamono ji ñuy àddoo sax seen entrainement bañ doon amal euh, ci ngoon si ca complexe ASEC Mimosa war na jeex euh, bu yembee incha allah balaa xibaar yi di jeex danañu ne cow dem ba Abidjan Côte d'Ivoire fekki fa sunu ndaw. Euh, ki di euh, Cheikh Tidiane Diawo moo ñu fa teewal ak jibilaay Diop waaye it équipe bu groupe Futur Média Cheikh Tidiane Diagne bu RFM Ousmane Diop bu l'Observateur euh, lépp ngir ànd ak yéen ci Côte d'Ivoire Sénégal boobu incha allah en direct lay doon lu ko mooy ñu jàpp ni ministre des sports gàkku jàpp na match bi am na solo lool ndax ci yoonu tabaxaat footballu Sénégal la bokk Malick Gakou ci micro Mam Fatou yi gañe nag sport euh, dafa laaj ñu football gañe mais bala ñu football aussi dafa laaj préparer match yi dans des conditions appropriées loolu moo tax euh, président Macky Sall depuis bi ñu ko falee daf ne ma il faut que ñu changer doxalinu sport sénégalais moo tax day ñu teg programme Sénégal horizon 2022 bi nga xam ne nii ci infrastructure lay commencé jaar ci formation jaar ci développement. ci loolu nag moo tax aussi ñu nag fédération de football ñu lëkkaloo. Eh, wane ne eh, Sénégal bu ñëpp xool yëpp bokkee bokk ñu bokk ndey bokk baay Sénégal kenn mënu ko téye loolu moo tax eh, depuis un mois et demi dama mettre en place benn comité mixte bu xam ne nii sama directeur de cabinet moo koy diriger moom ak le président de la fédération sénégalaise de football ñoom ñu liggéey liggéey bu rafet. tey jii mën naa wax ne benn problème amul ci équipe nationale amul problème prime joueurs yi bi ñu bi ñu ñëwee rek lañ leen rembourser seen transport te xam nga peut-être gëjoon na fi ñu wax ne aussi bu yàlla defee ñu gagné. bu ñu ñibbisee aussi dañ national équipe teg nañ ko ci condition yoo xam ne nii vraiment wax ne état bi ak fédération lañu ñu waroon def yëpp def nañ ko. match Sénégal Côte d'Ivoire samedi bi nu dëgmal am na solo lool jàngatu technicien Sénégal ci taxawaayu équipe bi naka la ñu war a duggee ci match bi euh, laaj ak tontu dox na diggante yenn technicien yi ak Sayer Insa Diop mi ko faram-fàccee. naka la ñu war a taxawee ci jongante bi dox ci suñu diggante ak Côte d'Ivoire loolee mooy li soxal tey sénégalais yu bare ñi seen xam-xam màjj ci wàllum football ñu ci mbir mi. dem dëkku jàmbur yombul waaye ñun mën mënoonoo tukki te am nañ xale yoo xam ni yàlla defal nañ ñu ngi ci compétition yu beneen te ku mel ne Papi Demba Cissé ay Sadio Mané ku mel ni euh, gardien bi ak Koto ak ñeneen ñi nga xam ni ñoo jàppale équipe bi ndam li war na mën a ñëw ci kaw ñu dal ànd ak tey. dem war nañu ànd ak dal ñu tey tey suñu bopp xool naka lañ fay taxawee ba dara mën ñu bañ jaaxal loolu bu ñu ko defee mën nañ ci génn. xoolee li fi nekkoon ak li ñuy jël mixé ko bu ñu ko taxawalee ñëpp jàpp ci Sénégal yëpp jàpp ci nekk ci gannaaw bañ bàyyi sànni xeer yi jàppale pourquoi pas mun nañu réussir coup bi. ñenn ci ñoom di xamle sax lenn ci ay pexe yi tax ba ñu mën a génn ci match boobule. ci xaaj bu digg ñu ko milieu de terrain foofu lañu war a gën a def suñu poste ak suñu doole ba mën ko mën a joxee mën ko jox xale yi ci nu mu waree te xam ni ci kanam rek la war a jël. Côte d'Ivoire équipe bu mag a mag la euh, boo ko bàyyee moom mu téye bal bi contrôler contrôler di dox sa kaw ñu ko neexee loolu du sotti. da ngay bañ mu contrôler match bi bu contrôler wul match bi rek jongante bi ma bu ko contrôler wul rek Sénégal mën na si am dara parce que ñoo ko gën a féete ndaw gën ko gaaw mën nañ koo indil ay ay jafe-jafe foofu. benn ci ñaari équipe yooyu la bëggul ñàkk a teewee Coupe d'Afrique bi di ñëw loolee nag tax ba ñu bare di séntu jongante bu metti daje bii nag mu ngi bokk ci tour bu mujj ci qualification yu CAN 2013. match bu am solo niñ leen ko waxee ñeneen ñu war a jongante it euh, ba léegi ci wàllu qualification CAN 2013 bi ca Afrique du Sud muy équipe bu Cameroun fii la ñu defee seen stage bàyyeekoo nañ fi tey ci suba dem ca praya ndax Cap Vert ñoom it la ñuy taseel Euh, ci wàllu woowu yëkkati nañ ay euh, koppar ndax euh, biñ fiy entraîné dégg nañ jafe-jafe yi askanu Sénégal am ak mbënd mi kon ñoom waa Cameroun seen joueurs yi def nañ seen alal ci solidarité bi am fii ci senegal ba tax ministre de sports Malick gàkku dem na leen seeti démb ci seen entraînement bu mujj yëkki fi yi kàddu mam Fatou Ndoye moo ko taataan. dëkk bu mag la ci football. Eh, bu ñu dee ba choix du Sénégal loolu am na lu muy wane ci suñu réew ci fànn bu nekk nag loolu moo tax ma ñëw fii d'ailleurs pour encourager leen ci tour président de la république ci turu premier ministre turu gouvernement ak Sénégal yëpp eh, wax ne Cameroun ak Sénégal benn lañu. te Afrique aussi nii la war a doxee parce que ñu yëpp ay doomu Afrique lañu eh, boo nekkee Cameroun day mel yaa ngi Sénégal doo nekkee Sénégal day mel yaa ngi Côte d'Ivoire jogante nag bu amee dañuy xëccoo ci terrain bi waaye ñun ñëpp benn lañu ñu bokk ndey bokk baay loolu moo tax Cameroun mënul ñëw fii. ñu war dem suba euh, te président de du ma fi yabal ma ñëw remercier leen nuyu leen sargal leen wan na ne Sénégal nag dëkku teranga la ñoom ñooy lion lions indomptables ñu ñooy les lions de la teranga waaye comme dajewuñu nag bu indomptable dajee teranga moom solidarité <laughs> rek moo fa mën a am ak waxtaan ak jogante euh, ak wante ak ni mu gën a rafetee te Sénégal aussi ñoo rek lañ xam ma ñaan yàlla nag euh, comme ñu dañuy jouer samedi. ñoom ñuy joué samedi yàlla may ñu ñu ñëpp ku nekk am ndam. Malick gàkku ba mu seetee euh, équipe bu Cameroun euh, incha allah ci nasaraan danañ leen dégtal capitaine u Cameroun Nicolas Nkoulou kaddu yi mu yékki ni ki Rigobert Song nekkoon capitaine équipe bu Cameroun jamono ji mooy manager bi xibaar bi ñeel équipe local bu Sénégal dafa exempté ci préliminaire CHAN bi ñu dëgmal 2014 Afrique du Sud it lañ koy euh, jongante danañu tase ki gagné diggante Libéria. Libya ak euh, Mauritanie CHAN bi ma fàttali leen ni 2014 euh, Afrique du Sud te euh, ñi nga xam ne ñooy yëngu ci championnat locaux yi seen biir dëkk kon ñoom ñoo koy jongante niñ leen ko diggee woon dañuy dem ba Abidjan fekki fa sunu ndaw Cheikh Tidiane Diawo Cheikh Tidiane ñi ngi lay nuyu. Pape équipe nationale bu Sénégal nu mu demee tey ci ngoon ci complexe ASEC Mimosa. waaw euh, foofu ca sol benn la euh, sunu gaynde yi euh, mujj entraîné tey ji ci ngoon mais laata loolu rek ñu fàttali rek ni ñoom tey ji bi mi midi tegale fukki minutes la ñu yegg ci fii ci Abidjan wàcc ca base aérienne bu Abidjan bi ñu ñëwee nag supporters yi teeru leen teer bu am solo mu mel ni fii ci Abidjan daal match bi ñu ngi ko fii xaar bu baax foo romb. ci match bi la ñuy waxtaanee ñu bari sax di jàpp ni Ivoiriens yi dañoo xaw a tiit ndaxte équipe Sénégal bi dafa am joueur yu bari yoo xam ne dañ ci bees te dese nañu leen a xam waaye nag euh, yëfi daal euh, Abdoulaye Der euh, mi ngi mi ngi noonu daal lu muy xeeñ nag moom neex na lool waaye nag tey ci ngoon la sunu gaynde yi amal seen i galop d'entraînement bu njëkk fële ca complexe ASEC Mimosa boobu sol Solbeni entraînement bi sax euh, sànq la jeex ndaxte fii moom euh, instant bi dafa guddi par rapport ak euh, Dakar looloo tax entraînement bi teel a jeex waaye entraînement bi dañ ci nemmeeku Abdoulaye Der moom mooy wax dëgg affaire bi dafa meloon ni match compétition la ndaxte engagement bi da bari woon lool lool lool lool ba sax Ferdinand Coly mi nga xamee ni sax moom ci staff bi la bokk da doon wax joueurs yi ñuy teggi seen tànk. moytu blessure yeeg yooyu ndaxte euh, kii di Kara sax jotoon na fa euh, taakale Dame Ndoye benn taakle boo xam ne nit ñi demoon nañ ba yaakaar ne sax euh, dafay dafa gaañu waaye finalement plus de peur que de mal lépp mujj na jeex ci jàmm joueurs yi ñoom ñëpp nag entraîné nañ groupe bi daal ils sont complets à l'exception des deux forfaits ñi nga xamee ni Moussa Sow la ak Pape Ndiaye Souaré mais à part euh, ñoom daal euh, groupe bi ñëpp entraîné nañ euh, Isiar Dia ak kii di nan lañ koy waxee ci sax Demba Ba ñoom ñëpp ñi nga xamee ni nit ñi dañoo xawoon a am tuuti tiitaange ci ñoom finalement ils se sont très bien entraînés aujourd'hui te wane nañ forme bu mat sëkk waaye ba léegi tamit ci entraînement bi mënoo lire équipe bi nga xamee ni moom la Joseph Koto dara classé samedi. peut-être que lépp nga xamee ni moom mooy euh, veyu match bi peut-être que dinañ ci mën a am euh, tuuti indication mais pour le moment euh, ce n'est pas le cas mais lu ñu mën a wax ni daal mooy motivation mi ngi ci gaynde yi engagement ak détermination bi nga xamee ni ñu ngi ko doon gis ci ñoom ci Jeux olympiques yi boobu mi ngi ci ñoom mu mel ni daal il sont prêts à aller au combat Euh, image yi nag euh, di ngeen ko gis ci euh, TFM ni ngi def sunu képp lay kàttan ngir ngeen jot ko xam naa ni moom ëllëg moom programme bi dina am solo grand camp beeg yooyu Pape Abdoulaye Der. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw ni nga ko junjee grand camp incha allah ci àjjuma ji. spécial lay doon émission spéciale en direct di nga ci bokk ci kàttanu borom bi waaye Alassane Dour bokkoon ci équipe bu 2002 bi ni ki Alassane Dia direction technique nationale la bokk ku mel ni Pape Seck correspondant RFM ca Marseille dina ñëw fii bokk ci direct boobu ñuy def ak yéen sax téléspectateurs yi di ngeen mën participer ci réseaux sociaux yi Facebook ak ñoom Twitter ak ñoomin seen ci surtout groupe Futur Média tfm euh, point sn bi di ngeen ci mën a jaar niki ci téléphone bi it danañ leen ko ubbil ngeen bokk ci waxtaan bu yaatu boobu ñuy jagleel ëllëg 9 bu tegalee fukki minute ak juróom ci guddi gi laata samedi bi it ñuy yegsi ci programme bu yaatu yaatu danañ leen ko gën a faram-fàcceel ci kàttanu borom bi Ibou loolu doon fi di gën a fës ci wàllu tàggat yaram jërëjëf Pape Abdoulaye Der laataa ñu yegg ci pàcc bu mujj ci xibaar yi ñu bàyyi bàkk bi daanu ba pare Bye. niñ ko baaxee defee démb ñu waxtaan ak yéen ci wàllu xëy loolee nag ñu ngi ko amal gannaaw bi ñu dëgmalee déclaration de politique générale bu premier ministre bi nga xam ne ñu ngi ko jàppandi altine démb ci wàllu xëy la ñu ñëwee tey nag wàllu kaaraange la ñuy dikk ak yéen ndaxte criminalité bi maanaam faat bakkan yi ñuy nemmeeku ci dakaar ak banlieue bi jamono yi bëri na loolu loolee nag li ko waral Salif kase nekk benn policier boo xam ne moom mu ngi nekk ci retraite moom dafa jàpp ne euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy commissariat yi rawatina takk der yi doole luñ leen ci wàllu équipement nee na loolee nag buñ ko defee amaana dinañu mën a xeex bu baax li nga xam ne moom mooy agression gi ak tamit ñiñ fi faat bakkan yi ci loolu nag nee na mu ngi ñaan premier ministre di Abdoul mbay mu def lu ni mel ci ponk yi ci déclaration bu politique générale am Nafisatou Silla ak Mor Xarma lañ ci àndal agression rayaate sàcc gi ak yeneen i xeeti ñaawteef dafa gën a bari jamono ji gox yu bari ci ndakaaru la yitteel waaye rawatina ci banlieue bi te li ko waral dafa bari. waaw loolu euh, li ko indi yëpp moo nekk ñàkk euh, kaaraange parce que wax naa sànq na avant indépendance boo déggee ku rey nit balaa nga koy déggati alors euh, ci Sénégal ay ati at lay doon. un commissariat boo xam ne ay dix personnes ay quinze personnes ñoo ñoo fa nekk ah, di di di di awante oh, poste boo xam ne guddi boo fa demee ay cinq personnes nga fa fekk ah boo boo demande intervention alors euh, ku fay des ah wala fekkee na pas affaire upp na leen loolu doole ah est-ce que ils pourront intervenir wala ñu ne alors amuñu amuñu oto amuñu essence ngir policier bi retraité nekk jamono ji délégué de quartier bu Parcelles Assainies unité 7 loxoy askan wi mu ngi ci biir te war nañu gën a sóobu ci li di xeex ñàkkum kaaraange gi. ñun si suñu bopp ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci quartier yi ñu war a nekk suñu gendarme bopp ñu war a nekk suñu gendarme euh, suñu war a nekk suñu police bopp ku gis loo xam ne du yoon euh, gis nit muy def nakas noonu. da nga koy signaler alors délégué de quartier wala nga signaler ko alors commissaire te ñun suñu bopp nañ ñu gën a góorgóorlu alors di bañ bañ ne euh, kii kat dama ko signaler parce que euh, sama doomi euh, voisin la. ngir moom nag warul am benn ñaawteef bu ñu war a baale te donte sax fii ci Sénégal ku rey kenn du la rey daan gi dafa war a gën a metti ngir wàññi ñàkkum kaaraange gi fii ci réew mi doxalin bu bees war na ci kaw loolu nag moo ngi interpellé kii di premier ministre ci déclaration de politique générale am. dama bëgg ministre ministre bi le premier ministre buy def déclaration am mu ne ñu euh, man bu soobee yàlla kaaraange yi dina ko yokk dina yokk euh, euh, commissariat yi dina yokk post de gendarmerie yi dinaa leen yokk alors doole yokk leen alors personnel yokk leen alors moyen logistique maanaam yokk yox leen ay oto alors si seen mbir yi aussi ñu am ay alors ay mbir yu méngoo jamono bi. kaaraange nit ñi nag ak seen alal dafa am solo loolu ci réew sénégalais yi xam loolu nag moo waral kii di premier ministre boole mbir mi ci déclaration de politique générale bi mu wax a def altine bi ñu dëkk mel. jërëjëf Nafisatou Silla yemook fi ñuy ndarkeppee xibaaru marax gi ci TFM di leen jaajëfal ci teewlu gi jërë ngeen jëf.